jour boobu da doon ñëw fii ak amoon na benn boy amoon na benn dese amoon fii si koñ bi fii jour boobu la mu laa ko mujjee gis interview boobu noonu doon def école mm, boy bi boobu la mujjee wax boobu laa ko mujjee gis dem daal laa wàcc ay dix-huit heures fekk maire bi tamit di soog a ñëw ñoom ay ñaari fan manqué woo mënu ma kaa jox jéegi-jéegi tamit samay xaw a changé mu ko lu xew man man lu ma gën di dëgg lu ma gën di dem ba du dëgg man ko bàyyi li ngay wax ne man ah sama xol neexul de du muy woote du woote jotu mais mi ngi xool ku gën a jege Aziz rek neetul mi ngi koy woo ñooñu tamit si woowee Aziz tamit duñ ko jot ñooñu tamit jaaxle nan ko garaawul léegi man su kanamee dinaa fa dem su ma jullee gee ba pare ma jullee gee ba pare déggante Nabou Leye moom it mi ngi woon foofu moom it xam moom ba son moom jotu ko ak yeneen gars yi tamit bu ma tamit ñoom it ñu xaw a triste ñoom. ñëw naa ñoom it ñu daaji bunt bi mais amuñu fit pour dugg parce que xamuñu affaire bi nu mu demee waaw mais man bu mu ñëwee ñoom daaj nañ bunt bi ba ministre bi monté waat porte bi ñoom ñu si biir fekk sama benn mag bi fekk naa sama mag bu benn mag bu góor tamit ku ñu naan Modou mooy ba mu ñëwee mu ko fekkee foofu ma ne ko léegi bunt bi ministre bi dafa tëjaat dañ jéem a xool ni ñu tijjee bunt bi maa force porte bi porte bi bu tijjeeku fekk appartement yëpp ay direct la hmm. fekk appartement bi tamit désordre quoi ak am na salle de bain fekk benn booy bi naan waali tëdd na foofu mooy si biir lañ ko jam ba butit bi génn waali maa ko tiim ma woo sama góor mu fekk moom ñëwewul man ko kaay xool mënu man ko bul tiit kii du Aziz sama xel xaw a dal man alhamdulilah man ko attends am na lu des dañ xool porte yooyu ko nit xool beneen porte bi xaw ma sàll xaw ma nekk porte boobu dëgër sama xel ñaw man Aziz darul tel fii téléphone néew fi te Aziz kër Aziz ko waali dañ fek te waali dee te muy commencé yàqu te foo xet baa ngi commencé kii parce que xam na lii ay dimanche guddi lay doon quoi parce que mais xëy na woo ko lundi ak mardi jot ko te mardi si ngoon laa gont dem foofu léegi euh, man sama mag bi man nañ foo support ma foo support foo sama nangul tuuti ma ne attends comme woo comme mbay benn benn copain moom it ku jëkk Aziz mi police bi nañ xaar mbay kon attends su police ñëwee ñoom it xëy nañ ñoom it jéem a xool ni ñuy daajee porte bi quoi yaagul police ñëw sappo pompier tamit ñëw def liggéey bu rafet sappo pompier ak police Sénégal non dem kontaan naa si ñoom maso spécial dëgg fa yàlla dem taxaw nañ taxaw bu rafet waaw def nañ liggéey bu rafet buñ ñëwee ñoom it ñu waat ministre yi bu daaj porte bi fekk Aziz tamit rey nañ ko ba sànq ko foofu non ñoom dañoo ñëw fekk Aziz rey nañ ko xam naa ba sànq ko parce que ministre bi laaj laaj na Aziz mu mu fekkee Aziz naa yeesu ay dafa dañ rey ba sànq ko si li bi wax parce que man gisum Aziz bu ma duggee man booy bee laa gis booy bi ñu rey ko rey bu ñaam tëdd salle bain bi butit biir bi génn xam na comprendre mais man Aziz bëggoon naa kaa da wóor daaj ci porte be mais wóorul sama xel dalu te kay dem na police te police ngi ñëw kon naa bàyyi police def liggéeyam mais police moo gis loolu mais man laaj ma police miniser bi laa laaj ministre bi ma carrément mu fekkee Aziz naayisul ñaaw na trop ñaaw na trop mu jot maa gis Aziz laa gis léegi police def liggéeyam sappo pompier tam def liggéeyam liggéey bu rafet ñoom def suñu liggéey tam jël ko yóbbu ko dalal jàmm ba ay trois heures du matin quatre heures du matin ñu ngi dalal jàmm sama grand yi tamit ne fa ak man ci lañ ñibbi si fii tamit xam nga xaw a noppaliku tuuti grand yi xëyaat ay dix heures neuf heures demaat dalal jàmm maa ngi diggante sama benn rafet bu góor sànq ñu rawale ko surtout waa SAE nii autopsie la ci lañ def. waaw kon waxaguñ leen kañ ngeen di jot tool bi. non waxaguñ dara nag. Aziz nga topp ci moom ngeen bokk ndey ak. Aziz ñoo bokk ndey ak baay moo namp doomu ma namp. macha allah ndax mus na la dénk ay kàddu laataali bi am waxtaan ngeen ci loo xam ne ay nit dañ ko doon menace wala leen yenn saa yi. non Aziz Aziz du ragal su bëggee dégg dëgg rek Aziz du ragal fii ku fu dëkk ginnaaw raay juddoo fi màggee fi ragal ragal dëkk du ñu ay ragal ñu fa toog bu ñu ay ragal jigéen ñi du ñu ay ragal duñ dellu ginnaaw Aziz gaynde la xam na lu war a am moo am rek xam naa kii tamit xëy na tamit xëy na daal lu war dañ kaa wala ndogal la wala leneen ak man xaw ma si ma dara parce que Aziz moom su bëggee dégg dëgg rek ñëpp la jox jàmm hmm. amul ak kenn benn affaire foo fekk day rek ci doon jotaay gi yow ni dem moom du jóg ci hmm. noonu jotaay nii soo déplacé wul du déplacé day wax rek waaw borom bu baax la yaayam gërëm na ko papaam tamit gërëm na ko ba sàngu suuf njaboot amul jabar amul doom mais ay doom magam ay doom lañ ginnaaw raay fi mu daj ñëpp la jox jàmm mais yàlla baax na nguuru Sénégal tamit nag maa ngi bi dee dee yu bëri na te Sénégal bëri na trop te mënuma comprendre man mii nekk xale bu ndaw te na leen dëkk musulman la su dee cent pour cent quatre vingt ay musulman lañ mais la moo tax mën ñoo d'accord li dina wax li dina wax xam nañ ko dina wax nee ñu ay musulman lañ ay musulman lañ loolu lañ wax noonu eh, gën a wax duñ ko def eh. la moo tax yeneen dëkk naar yi parce que Arabie Saoudi bi ku joomi foofu dem mhm. ñuy doxal dëgg la moo tax ñu Sénégal mun ñoo doxal dëgg maslaa bi nañ bàyyi maslaa bi maslaa bi kañ xaarim eh. Sénégal maslaa bi daa bëri hmm. billahi maslaa bi man chaque jour que jëfee damay déglu RFM six heures du matin ba ni may wàccee damay déglu alaaji Assane ku ñu naan alaaji Assane waaw ma naw la mais Sénégal nag mooy dëkk boo xam ne dafa naqaree waxee da nga naan benn yóbbu ko ba cent dafa naqaree waxee mais xam nañ li dëgg li dëgg nañ ko def ku nekkul si yoon nañ la teg si yoon ñu bàyyi maslaa bi ku sàcc ñu def teg la si yoon. ku rey ñu teg la si yoon teg la ay daan yu métti ñu bàyyi maslaa bi dañ bàyyi maslaa bi tànk que maslaa baa ngi dox rek senegal c'est comme ça billaahi wallaahi du gaaw dañ mais nguur nag Sall bi ma wax dëgg nguuru Diomaye Diomaye Faye moom ah am naa si yaakaar am naa si yaakaar mais nañ bàyyi maslaa bi daal nañ bàyyi lépp si yàlla gëm naa ne yàlla dina leer lépp as ma gëm naa ne tamit fu mu jëm moom sama xel dal na si quoi parce que kii ni mu def sax raa xamul dina ko teggal ay bàkkaaram yu bëri te yàggul nii nii rek fan semaine bee rek bu mu jug bu mu feebaree jël na almeeta ziar papam chaque ajuma dem ajuma ci gënu Sénégal wala sorewul Dakar tuuti chaque ajuma dem ziar papam waaw papaam gërëm na ko mu ñuy gërëm naa ko ay mbokkam gërëm te gëm naa ne tamit waa Sénégal gërëm nañ ko Aziz Aziz ma yàlla rek yàlla dina ko fay xolam waaw yàlla dina ko fay xolam bu baax dina ko fay